loolu jàngat ko c'est c'est lu simple la parce que comme ni nga ko waxee yow léegi rek nee nga nit ci ñooy jóg di ci jàppal seen bopp loolu rek day wane ni mbir mi ku ci nekk di ci gis boppam parce que nit ci bu yàgg li ñu xamul ci politique moo di nit ñëw démarché la am lum la tàllal am lum la jox am lu mu la dikk mais fii li ñuy gis léegi mooy tendance mi ngi renversé wu

li tax nit yooyu di ñëw en mas parce que dañ leen woo ci dëgg dañ leen woo ci loo xamante ni ñoom ëllëg bu nekkee doxal nañ ko rek incha allah dinañ nekk si jàmm seen njaboot nañ nekk si jàmm ba pare day indi lu ñuy wax développement harmonieux maanaam kenn du dem bàyyi sa morom ñun ñëpp ñooy defarandoo dëkk bi te boo xuusee tuuti da ngay xam ne sax loolu jaamu yàlla la te dëkk bi en majorité ay musulman ñoo ko composé ay nit yu gëm muy musulman muy catholique ñoo ko composé ngëm-ngëm dafa fort ci réew mi te ngëm-ngëm boobu day orienté nit ci def loo xamante ne moo jub te boo gisee Pastef li mu woote président am li mu woote njub la sérieux la bëgg sa réew la woote te loolu yëpp jaamu yàlla la mu nekk benn chose benn affaire bu aussi affaire positionnement politique la boo xoolee parti fi nekk 1960 ba léegi même chose la ñuy def même chose la ñuy proposé même format la ñu am àndandoo lijjanti suul bukki suuli bukki ba xëytee nguur mi pàccoo affaire yi dox seen dox loolu kese fi gaa yi nekkee mais yàlla moo def nit ñëw parce que mbir aussi foog ñu xam ne am na peut-être ay bonne volonté dans le passé ay nit yu jógoon bëgg def li mu bëgg a def bëgg sax am tuuti ci xalaat boo xamante ne day xaw a méngoog ñoom moom Sonko ni muy xalaatee mais yàlla moo def mbir mi ci moom la sottee ndax moom moo ko fa xaar moom moo am pas-pas bi moom moo dëggu dëggu boo xamante ne. yàgg na fa ba mu jaral ko ñu sacrifier ko dàq ko ci fonction publique bi nga xamante ne kenn mayu ko dara moo def ay concours ba yëg fu mu yëg loolu noonu yëpp boo ko dajale day nekk li nga xamante ne yàlla moo ko namoon ci moom affaire yi sottee ci loxom bi mu sottee seen loxo tamit sénégalais yi nga xamante ne ñoo ko dégg woote bu dëggu woote bu sérieux loo xamante ne mu mosuñu ko dégg en politique nga xamante ne lii boo si jàppee da sax fier parce que li ngay def yoo xam nga ne lii dafa noble xam nga ne lii dépassé na sa propre personne moo tax Sonko moom la xam Pastef moom lañ xam moo tax seen texte yi yaatu ba pare nit ku nekk boo ñëwee aussi am nga ci sa place waaw nit ci aussi li nga xamante ne dañ koy jóg di ko ci def bu mu la jaaxal lenn kese la dañ cee gis seen bopp gis ci intérêt askan bi yëpp gis tam mu nekk démarche boo xamante ne kenn mosu ko fi indi Sénégal mu nekk loo xamante ne si inédit waaw donc fii nag ñun ñëpp dañ ñoo yar ci mbaax ci sérieux ci jub sénégalais moom même buy def ay juumte sax nit ku baax la nit ku bëgg lu baax la waaw moo tax di gis ñoo xamante ne sax ànduñoo ak président Sonko ànduñoo ak Pastef mais dañuy wax ci ñun lu baax élection yi passé ba mu jeexee dégg nga ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekkoon si kujje politique yi ñaan neexul ba neexul mais sa waay la sa mooy avenir u dëkk bi voilà loolu nag li ko indi mooy offre politique boo xamante ne dafa nekk loo xamante ne dafa rek li dëkk bi soxla maanaam Sénégal li mu soxla fi mu nekk nii mooy une offre ancienne classe politique bi fi nekk di piller ressources yi di tàppale di caaxaan ñu jël leen berleen yóbbu leen retraite ñoom ñëpp ay jeunes ay sax ay mag ndaw ak mag jigéen ak góor yi nga xamante ne bëgg nañ réew mi am nañ capacité bi am nañ engagement bu doy bi ñu jël leen ñu defar réew mi donc li tax nit tam ñëw ñëpp ñëw du songandoo di jàppandoo te kenn euh, neexalu leen loolu noonu noonu dañoo say gis rek loo xamante ne la Sénégal yëpp lay jëriñ pour man loolu moo ko def